mooy la grosse houle qu'on a tous constaté ñàkk ci seen matériel ma bëgg a xam lan la état fas yéene def ba ñooñu mën a gisaat seen bopp ci ci napp bi monsieur le ministre beneen doléance parce que nous sommes toujours à Dakar mooy le quai de pêche qui a été aménagé avec la coopération marocaine bu nekk Soumbédioune quai de pêche boobu ñu ngeen di laaj kañ ngeen ko fas ubbi parce que malheureusement su ngeen fa demee surtout le soir lu nekk ngi fa ay bujumaan ku lim jum lu nekk ngi et je pense que tout de même presque cinq ans mi ngi nii pour ne pas dire plus d'années ce quai de pêche a été construit avec la coopération euh, du royaume chérifien que nous saluons au passage mais malheureusement ce quai de pêche n'est toujours pas opérationnel monsieur le ministre leneen tamit lu ñu ñor ñun ñun askanu Dakar mooy bëgg a xam lan ngeen fas yéene def surtout avec le canal de de Fass Gueule Tapée lu muy déverser ci mbalit ci euh, géej gi particulièrement ci baie de Soumbédioune c'est je ne sais pas si vous avez pu visiter il faut y aller et je pense que peut-être ce n'est pas une compétence transférée en mer mais canal bi c'est une compétence transférée lan la lu mel de Dakar a def ak le ministère de la pêche pour qu'on puisse mettre des grilles pour pouvoir capter mbalit buy jóge biir Dakar di dem ci euh, ci tefesu Soumbédioune parce que ñu ngi wax ci waxu euh, mbalit bi wante mbalit bi lu muy yàq géej gi je pense que les spécialistes peuvent en témoigner surtout par rapport au fond marin et j'aimerais savoir aussi lan ngeen fas yéene def par rapport au nettoiement des fonds marins parce que je pense que Euh, quand on parle aujourd'hui d'environnement, mais l'environnement, ce n'est pas que sur la terre. Donc, qu'est-ce que le ministère aujourd'hui compte faire pour pouvoir aujourd'hui euh, nettoyer les fonds marins monsieur le ministre ma bëggoon xam tamit lan ngeen fas yéene def pour pouvoir aujourd'hui ramener des zones maritimes protégées parce que on parle beaucoup du manque de poissons en mer mais Tout le monde sait que toute activité a besoin d'une pause tout de même. Et il faudrait qu'on puisse connaître ces périodes de pause et qu'on puisse être assuré que ces périodes sont respectées aussi bien par les locaux que les internationaux. Et monsieur le ministre, man dinaa voter ce budget à une seule condition parce que du yow yaay définir la politique de la nation son excellence Macky Sall moo koy définir est-ce que mën ngeen góorgóorlu may nappkat yi au moins répit ngeen mën a annuler licence de pêche yi au moins pour un an ndax géej gi mën a régénérer wu et puis tamit ñuy yëngatu ci euh, euh, ci euh, napp bi mën a gis seen bopp parce que wax ci mooy lan ñu nangu ko ñu bañ ko c'est à l'origine de l'immigration clandestine parce que immigré yuy dem amuñu gaal amuñu moteur wante ku fi am gaal wala nga am fi moteur ñu xam ne sa wërsëg ci géej gi wax dëgg yàlla te nga am njaboot te mu wóor la ne que soo takkee moteur song géej gi di nga am client mais à la kulial da ngay jéem a gis sa bopp ci loolu donc moi je voterai le budget à une condition j'ai pas dit d'annuler les licences de pêche j'ai dit de permettre aux pêcheurs sénégalais de pouvoir profiter des eaux sénégalaises je vous remercie merci honorable député la parole est à l'honorable député Cheikh Seck